mais bu maamu démb yi su maamu démb yi xamoon li baax tey wala bu ñu doon dund tey xam naa ne dinañ jël danañ bàyyi yenn affaire yu ñu doon dem je doon yéen yu doon def ma jox leen benn exemple. Mhm. ñu taxaw ci ndaw. après ñu jël téléspectateurs yi. waaw ñu taxaw ci ndaw. Mhm. yow da nga ni jamono jooju. yaay booy maam xamul woon ne jigéen dina judd sans hymen buñ ko xamoon du ñu accuser yenn tey dama ne ni laabaan baaxee woon taxoon yenn jigéen yi takk seen sër. laabaan bonee woon na fi taxoon yenn deru jigéen yi yàqu te judduwuñu ak email loolu lu am la ku yàq yaa yàq waaw ñu avancé ah, mais waaw may ma li ma lay wax nii de lu am la ku yàq yaa sa bopp lu ñu mën a xool la mën ko xam ne am na ah. jigéen ah, yu judduwul booy def booy def koo gis ne ko yëre li ma yor kay waaw d'accord est que mën naa continuer jigéen daanu na attention déedéet déedéet mais est-ce que mën naa continuer euh, mais da nga koy wax dañuy échange rek dañuy échange da nga koy wax mu noppi bu soit ñu échange soit ñu wax dañuy échange dañuy échange waaw oui lenn laa wax dama ne ku wax bu kar la yenn der yi defaru woon démb ñu jàngal valeuru jigéen takk sa sër ndax objectif première laabaan loolu la woon jàngal jigéen takk sëram waaw léegi bi ñu demee ba ñu avancé jamono di dox ñu xam ne jigéen de dana dund sans hymen juddu bu suñu maam yooyu démb juddoon tey dinañ baalu àq yenn jigéen yoo xam ne wuyaay yooyoon lañ leen woon ndax dencu seen ndaw waxuma nag ñi dencul seen ndaw ñoo taxaw ne juddu euh, judduwuma hymen ndax ñooñu tey yàlla lu mu def noonu la dafa médecine nga xam ne boo ne judduwoo ak hymen mën nañu dem vérifier ji ne judduwoo ak hymen oh, waxuma ne jigéen du denc ndaw de mais bëri na ñu bëri démb xam ngeen fépp mën naa terminer waxuma ay ñiy defar ndaw ak yeneen li ma wax c'est très clair dama ne démb ñi juddu woon sans hymen médecine mënu ko woon justifier démb noo ñu tey yuuxu woon nañu leen ne jàppuñu woon takkuñu woon seen sër te xamuñu góor kon dama ne àdduna day évoluer bu ma jugee laabaan dama ne je toujours dans l'optique que àdduna day évoluer li baax ñu jéem a xool ci concept yi ñu koy dugal euh, boo demee toujours ci médecine cycle menstruel lu jigéen bu jigéen doon def morso démb bu gisoon loo xam ne gën na commode morso dina ko teg suñu maam yi bu ñu jamono woon ak ñun nii dinañ xool li gën ci ñoom ak li baax ci ñoom ñu dem ba ci biir da daan dëpp indee di teg sa règle di nekk 2 3 4 jours nga dem àdduna di dox ba nga xam ne médecine di la wax ne trompe jigéen sa dépend de nii donc dafay justifier ce nombre de jours yi ngay gis sa règle am na ñoo xam ne waxuma la 3 4 jours de seeni règle day espacé te tey gynécologue yi ñoo leen di wax le pourquoi dama bëgg ne àdduna day évoluer taxul li fi maam bàyyi woon bon de. d'accord taxul li fi maam bàyyi woon bon. c'est parce que ñoom seen bopp Sophie. dafa am information yoo xam ne dañuy jël téléspectateurs yi Sophie. merci beaucoup 88 628 89 90 asalaamaaleykum allo. allo oui. sëñ bi noo sant yàlla bu baax. alhamdulilah ñu ngi lay déglu sa gis-gis itam bi. Sophia na ngeen def. ñu sant yàlla bu baax a baax. maanaam ndaw soosu.